ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne jësin dëggal ma bësin a def maa ngi fi moo tudd aw Mbenga da ngay jël Dakar dem dikk waaw chaque jour noo gisee Dakar dem dikk ah baax na lool su ma liggéey ta tardeedu léegi sax bàyyi naa amilan moom xam fii laay amilan wi damay dégg mooy kii balaay di balaay di huit sax ma yegg nga yegg fa nga jëm waaw doo xaar lu yàgg du yàgg sax ma tuuti dix minutes mm. waaw jërëjëf merci beaucoup. yal na liggéey bi barket yéen ñi ma jël ci télé bi li sax xéewal la mun naa si am sax magasin village artisanat. d'accord <laughs> jërëjëf ma bàyyi ambulant bi. jaajëfal nañ leen bu baax a baax di leen joxaane bu beneen yoon incha allah yaakaar naa ne jëlee ngeen ci njëriñ yaakaar naa yi tamit li ñu def tey seen émission li ci xel yi gis ngeen ci seen bopp kon jàmm ak jàmm.